lii ab laaj lay nu róol bokk yi kenn ku ne ci nit ñi day wér di wéradi waaye ak wér la gën a mën a yéem ci ak wéradéem am na ñuy wéradi ñoo xam ne dañ naan ah nangam rek la amul solo di ko bay bayal ba mu far daj yaram bépp te fekk fenn rek la tàmbale woon mu di ko yëg di ko laal waaye day mujj foo laal mu ne is su boobaa nag lu mu gën a yàgg di gën a jafe saafara yal nañu ci yàlla musal ni loolu mel ci aw yaram ni ak wéré di mel ci yaram di tàmbali di tuuti di tuuti ba màgg ba daj yaram bépp noonu nag lu ñuy wax munkar deme ci aw xeet yàlla mu ngi wax ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yéen a gën ci xeet yi ndax da ngeen di digle di tere digle lu baax ak fàttalee mbooleem yàllay digle waaye di fàttalee it di tere lépp yàllay tere li yàllay tere nag bu fekkee dañ ko jëfandikoo ci diine jëfandikoo bay ci diine mooy li yàlla digle yomb naa jàpp am na fu mu tàmbalee am fu mu yem waaye benn bu ci nekk day am ay wànqaas yu ca bàyyi ko di law di tasaaroo ba kenn ku nekk mën na mën a xëy gis ca benn li ñu tuddee fii munkar bokk na ci euh, loo xam ne bu tàmbalee ci kenn te mooy jàngoro ji ma junj rek mu ne ca pat ne cell keneen yëg ko ne cell keneen yëg ko ne cell te fekk dañ koo jéem a suturaal su xëyee xëy génn ci ëtt bi génn ci pénc ma mën naa law ba daj fépp ndax ñi ko yóbbu fépp mooy ñi xëyee ci biir néeg jaar ci ëtt bi dem ci pénc mi ku ne jaar aw yoonam génn dëkk bi dem loolu nag yàlla nay lu baax rek waaye bu dee kaar la musiba am ndax da ngay defe ne yow yaa ko yëg te fekk ñëpp ko yëg tom bi tànn tey mooy li wolof di wax ŋarale ŋarale munkar mënu koo weesu mooy lan bu fekkee ki koy def wolof dana ko tudde kuy dox ba àgg ci aw sël yaari yoon yow mi jaaroon léegi yaar la def wi jëm ndajoor wi jam jëm càmmooñ mu bëgg a teg tànkam ci wi jëm ndajoor tànkum ndajooram bëgg a teg ci lu jëm càmmooy tànkub càmmooyam fu muy dox jëm jëmatul sànni kuy toog mën na ko dal mooy ku toogut ci ker toogut ci naaj ñu naan ci ngiñ cangañ la def ku dëppoog sendal wala mu toog ci kerub kàdd nawet duñ wax duñ mën a wax ne ci ci ker la toog duñ mën a wax ne ci naaj la toog waaye mooy koo xam ne it fu toog ba nga ne fa laa koy fekk mu jóg toogaat feneen waaye bu dee cim xel la mooy koo xam ne buñ ko nee tànnal du xam bu muy jël bu mu dem ba di ko bëgg a jël defe ne bee moo gën ba ca des muy séeneen comme ngarale daf gis koy def ci ay wax wax ji sax ci laa jëm si moo ma tax jóg dañ koy def ci jëf di ko def cim xel foofu nag du fa fenn munkar la fa tudd bu dee ci wax mooy koo xam ne ba wax jotee mën naa wax waaye du wax lu leer bu wax jotee mën naa wax waaye du wax lu kenn xam ku ne dana laaj moroomam lu mu ci lu mu ci jublu woon waaye léeg-léeg mu bàyyi ba wax jàll mu mel ni ku yëgutoon te su boobaa du wax lu kenn xam ndax bu weesoo amatul atte amatul njariñ xanaa li ci kanam kay la ñuy wax waaye ak teew waaye la weesu moom jërëtu ko alquran jàngale ko ci dénkaane boo xam ne luqumaan moo ko doon dénk doomam daf koy dénk ba agsi ci al amru bil maaruf wa nahyi an al munkar al maaruf mooy ponk yi lislaam bu dee ci lislaam nañ koy jëfandikoo lépp yàlla ne nañ ko def moo tudd maaruf lun nga nañ ko bàyyi mu tudd ka waaye bi mu koy jàngal mun munkar dëgg dëgg dëgg mooy rek na nit nekk fu mën a xam nit na ne fu mën a xam nga xam ne boo ko dee seeti xam nga waxtu may jóg ak fa koy fekk te buy wax it wax duñ ne mukk ci jublu woon foofu nag bokk yi jamono soxla na ko koo xam ne day nekk fu ñu xam di wax luñ mën a xam lu leer ba mu koy dénk daf ko ne yaa bunayya aqimi salaata bu ne ko fu lu julli fekk jugal bàyyi la nga doon def li ma leen bokk julli yëpp woor tey liggéey bu asaka jote nga génne ko te boo ko ne nga dem mag tey tudd yàlla ak yenentam sallallahu alayhi wa sallam waaye daf ko caa digal ne ko loolu soo ko defee sa jaan wàcc waaye nag del digle ki nga war a digal tam nangu nga digal ko bu dig bu digal ko jotee la koy digal na leer ci boppam mu xam la nga koy wax lu mu doon su tere jotee tere ko la koy tere na leer ci boppam mu xam lan la fu mu tàmbalee fu muy jàmm te nee na nag lu ñu la ca teg ci ay baat nu mu mën a doon dékku ko ndax foofu ku fi wàccut yaa ngi ca yoon wax yaa bunayya aqimi salaata wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asabak mooy luñ teg ci sa der luñ mën a teg ci sa der ak nuñ ko mën a gise ak nuñ ko mën a commenté yow waxal lu leer rek ca ba wax jotee inna dalika min azmi al ku tànkam te teggiwu ko ma ngi ca yoon ku ko top mu dem ku ko toppul mu dem am na ñoo xam ne bu ñuy wax euh, waxuma la lu mu ci jublu woon waaye faaw nga laaj ko keneen kooku laaj ko keneen ndax wax ja du leer day mel ne kuy log aw làmmiñam lam si jublu nag mooy du wan ne du ma seen morom man waruma wax ak yéen sax kooku ku mel noonu buy dox da koy gis ci aw dox doxinam benn mooy mujj ñëw jotaay bu mu fekk yàq ko muy mujj ñaan defaru leen te yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ci julli ne fa nga jëkk jot toog fa kenn la seen kuy jéggi di ñëw mu ne ko toogal yaa ngi gàññ ñi te mënuñu la ko wax ijlis faqad euh, yàlla nag nee na kooku moom mënut a doon waayam ndax day jaay yu amut koo xam ne kenn mënut a jot ci moom buy dox mel ne moo man ñëpp kooku yàlla nee na bu tut man lay dëkk yàlla nañu yàlla musal ci loolu wala tusair xaddaka linnaas wala tamshi fi l ardi maraxa inna allaha la yuhibbu kulla muxtalin faxuur ne ko booy dox doxeel ni nga mën a doxe rek mooy nekkal fi mën a xam rek booy wax na leer booy taxaw taxawal ci kër ga nga toog ci naaj wala nga taxaw ci naaj bi ñu xam ne ci kër la taxaw wala ci naaj bi la taxaw waaye ci niñ tanga niw ci kër niw ci naaj booy wax ñu naan day waliis wala day junj te nee nañ wax moom junj bokku ca junj bokkut ci wax euh, moo tax ñu ne lawla al isharatu la fahima al ximaaru kalaama da wax ak nit ñi wax ju leer ku ko munta xam nga joxañ ko su ko munta xam nga joxañ nga laal ko moo tax ñu ne bu ak wax ju leer junj kese kese kese tàllal aw yat mu xam ne da ko dàq wala nga xëcc laat bi mu xam ne da nga koo téye su loolu euh, nee na xemar mën a wax ak nit ñi mën a bokk ci waxtaan bi isaara kese isaaraati kese kese kese <coughs> booy dox doxil doxin wuñ mën a xam rek ñu xam fi nga jëm waaye bul yuuxu nit ñi di leen tiitloo ndax yuuxu nit ñi du aw yoon ci ko bëgg a wax ak nit ñi ñu xam ndax am na ku la daq yuuxu fop te safut kenn واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير loolu lañ ciy dégg lépp mooy ŋara la rek mooy fii ab tànk fee ab tànk nit bu doxee ba ci aw yoon yu jëm ndeyjoor wii jëm càmmooñ ba muy laata jóg na xam fa mu jëm fan la fa mu bëgg a jëm su demee ba ca foofa su gisee tableau xam su gisul tableau it wenn yoon lay jël buñ ne ko du yi mu dëpp waaye foofu mu jël nit daa war a jël wenn yoon moo tax benn boroom xam-xam nee na buñ la laajee saada dëgg-dëgg mooy lan saada mooy ajoom faju kii ajam da faju mooy kan dëgg-dëgg mu ne mooy koo xam ne lu ci moo cay jëlal boppam fa muy taxaw moo naan ci naaj bi laay taxaw wala ci teg laay taxaw rek mu leer naaj bi su taxawee ci naaj bi kër gi dana ko fa fekk waaye su taxawee ci naaj kër gi it naaj bi fekk ko mu leer naaj bi saadatuka alxaqiqiya masdaruha nadratuka lil umur wa laysat nadrat al axarina lak waaye laaj nañ benn xakim it ana ab taar dëgg-dëgg ci nit mooy lan mu ne du am col de kese kese waaye nag mooy koo xam ne xar kanamam bii rus yàlla mi ngi ci ak kersa diggante ak boroomam nga xam ne fu muy taxaw it naaj bi laay taxaw wala kër gi laay taxaw mu leer naaj am keneen ku ko feelu ne ku xamut ci boppam dara lu may lu ci ne dañ ko koy xalaatal kepp munta amal njariñ sax ñam dëkkal ña ko gën a jege te ku amulul njëriñ ñam dëkkal ñoo ko gën a jege mënut a jëriñ dëkk réew moom njëriñ am dëkk dara te ko amulul réew moom dëkk dara njëriñ mënut a jëriñ xeet wu lislaam bi dara kon bokk ŋarale ci munkaraat yi la bokk na ko ab jullit moytu imaamul Xasaali nag nee na moytu ŋarale te mooy munkara ci munkaraat yi la bokk di ko wattuloo nit ñi bokk na ci taxaw yonent yi ñëw buñ buñ mën ta wax ne moom képp taxawal nit ñi yonent yi dikk alayhim salaatu wassalaam nee na tegg sa tànk ci munkar bis buñ taxañee basan ngam nekkoon diine amatut place ci kaw soof yàlla na ci yàlla musal te nee su boobaa ak daal di not te bu ak notee alkande ñëwal xeet wi ñëwal jaam ñi bala koo xam nag bis penc taxaw suba wax xam ko lu muy jariñati moo tax ñi nga xam ne am nañ kàddu buñ ne digle ak tere nag ñu ne nañ déglu diw ñoom waaw waaw ah, waaye ku nekk na jàng digle tere ci këram fexe ba waa këram ñi mu jege ci ñu dëkk moom ku mu ca gis defoo te war a def ŋarale mu ne la defal wala bàyyil na tànk bi fekk bee wala bee que buur ne woon kat danaa la mas a wax loolu lu dëgg lam yeye buur buur daa ŋarale woon mbokki doomi mbokkum doomi bàyyam la da ko da ko ne sa wax ji bari na lool di wax nit ñi di yéemu waaye naa la wax loolu lu dëgg bis danaa la fen la wax mu ne ko may day ku mu leen ni ma yónni la maam rek ci teggin ndax na buur toll la dana ko loo mu ne ko may day ku mu yónni la maanaam ku ko jéem fen loo dana la fen loo nañ ma jege si baat bi benn bis la xëy takk la muy waat fas la cay ànd lépp ànd ca ña àndal ñëpp taxaw mu fa benn tànk bi teg ko ci benn dëgal bi ne ko demal dëkk sàngam maa fi ñëw mu ñëw na leen buur nee na ba muy ba muy laata dem moom mu yéeg fasam ba noppi aw fasam ba noppi wa bàyyi wenn dàll mu wadd mu ne ko buur bal ma jox ma sama dàll bi mu jox ko dàllam wax mu dem ci dëkk ba mu ko waxoon ne ko buur nee na mi ngi ñëw ñëpp kër kër yi mu ne leen waaye nag ba mu ma koy wax benn tànk ma ci kaw benn tànk ma ci suuf xawma bi ci suuf mooy fekk ba ci kaw mu ñëw xawma bi ci kaw fekk bi ci suuf mu wàcc mu fomm daal di wàññeeku ñëw fekk buur mu ne ko newoon naan naa la wax loolu lu dëgg mu ne ko may de ku mu yónni mu yónni la fa mu yónnee sama dàll boo ku ma ko jox bi mu waddee mu ne ko man mu na ko la nga wax amut ndax dama ne damay ñëw te ñëwuma mu ne ko déet dama ne leen tànk ma ci suuf benn baa ngi ci kaw dafa ŋarale xoom bi ci kaw mooy fekk bi ci suuf xoom bi ci suuf fekk ba ci kaw kon nañ seet feneen fu dëgg féete te man du ma nangu mu jóge fi man baaxul gën a ñëw ba nga wax te defoo ko daa lay toppe kon bokk bokk yi munkar dañ ko war a wax ci penc ma tere ko may bu ñëw te demut moom fu dëgg féete ku ne xam na ko ka woon dara ñëw te ñëwuma waaye kii moom li ñuy wax lu leer nañ ñi la fu leer la ko teg daa ŋarale ku ŋarale moom xamoo day dem xamoo day dikk moo tax képp koo xam ne am na ñu yilif su wax jotee na leen di wax lu leer teel leen a yeewi dem leen toog ci kër ga wala dem leen toog ci naajo wala bu kenn toog ci kër bu kenn toog ci naaj dem leen toog ci seen biir néeg euh, su ko defee waroom xam-xam ñi nga xam ne seen xam-xam day naaj ci bis bu set am nañ ci wàll ñi nga xam ne it duñ ku sañ duñ ku sañ yenn yi it waaye mën nañoo laabiri seen i bokk it nañuy fexe ba di nekk fuñ mën a xam te kuñ fa mën a yóbbaale ñu yóbbaale dafa coow bari na lool ci suñ jamono ku war a wax wax ku wërta wax wax ku ne seen diggante di wax te am na koy wax nekk ku wax daañu la tontu loolu moom ku bëgg a jaar yoon woowu war naa waaj ndax ñi wax dañoo bari waaye loolu lépp ñeneen di noppiloo mooy ku war a wax ñu ne ko yow yaa war a wax mu nangu ko nay teel wax lam war a wax ku ko def baax na ku ko defut jaanam wàcc waaye nag su xoolee toog ŋarale bañ ko ko mere bëgg ku ko gërëm du dem moo yaar yoon yi rek moom la yonent bi yàlla doon wax yonent bi lan lan tarda anka al yahudu wala an nasara xatta tattabia millatahum qul inna huda allahi wal day nekk fi nga xam koo xam ne sa dund lépp yaa ngi ci xalaat su ma ko waxee danañu ma mere bay boo nga delloo ndam ak tànk bañ la joxoon gën a yomb su fekkee lu ñu wax kese moom ngay wër di ko wax daye boo nga teel a noppi wuti ab liggéey moo gën a wóor ndax wax lu ñëpp lu neex ñëpp mu ne sukk kon yàlla na yàlla dimbali ba ñuy dox ci maaruuf te yàlla dimbali it ba fu munkar nekk buñ ko jege fenn te munkar daf cee bokk ŋarale gi may wax léegi mooy boo waree wax waxal fa jote wala sax balaa agsi su ko defee nga yewi ku yewi yewi ña nga yeewoon waaye soo bàyyee ba ku nekk am ci aw yoon mën nañ laa jaaxal ndax am na si ñoo xam ne dañuy wax ne yow laa àndal te ànduñoo ak yow te mënoo leen a xàmmee seetuñu fu dul foo dugg ci am pax ñu suul la ci biir am ñoo xam ne xool lu dul fu ñu lay gas ay pax bañ teggil la ko ñooñu nag dañoo mën a teel a yeewi da nga naan dem leen toog ca ker ga ñu xam ne ker nga leen yabal wala dem leen toog ci naaj ñu xam ne naaj nga leen yabal waaye su fekkee da nga ne ceen ñaan naaj waa ker ga fu ci dàq ba ñu ne kirtim ku nekk bëgg a yaay moroomam laajante ëllëg mi nga yem mooy ñu ñëw mooy lii imaamul Xasaali wax ne suñ xoolee munkar ba mu tasaaroo ba yàq li mu yàq bala ñu ko xam bis ci taxaw téye leen ti téere baat xel bala ñu fa àgg nag jàll nañu yàlla yee te wan ñu dëgg muy dëgg te wan ñu maaruf muy maaruf wan ñu munkar muy mankar te musal ñu ci te musal ci seytaane ki pexeem yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin